bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaam ala almabuusi rahmatan lilaalamin sayidi alxalqi ajmain sayidina wa nabiyina wa xabibina wa shafiina abilqasim almustafa muhammad wa ala ahli beytihi alladina ixtaarahum allahu wastafaahum wa jacalahum qudwatan lilaalamin rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk auditeurs rajo Mousdayri FM 93.2 di kaddu njabootu yonent bi di jubee ci complexe imam Ali Zac Mbao Dakar ak ci Zahra FM 93.8 ci Kolda ak li ko wër asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi di di ziar te di ndokkel di teg gi ci loxo Mawlana Cheikh Mohamed Ali Haydara mu jëm ci mboolem gi ji rawatina nag ay maamam ci juddug Fatimatu Zahra salaamullahi alayha nga xam ne ñi ngi nekk ci ay fani fàttalekum ci suñu dajee bi wees jotoon nañu wax ci Zahra salaamullahi alayha ci juddum mu nekk lu xam ne lu am solo la lu jeex di fàttaleku waaye waxoon nañu itam ci ay turam waxoon nañu jot ci Zahra baat ba lu ko indi waxoon nañu itam ci benn ci ay turam wala ay muy as-siddiqa ku dëggu ki te dëggalal yàlla dëggalal ak yeneen tam ak wax ji nga xam ne moom la sang-sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa ali am imaam ali alayhi salaam ne ko am nga ñett ñoo xam ne yàlla joxu ko keneen ku dul yow am nga goro bu mel ni man man sax awma ko ndax moom amoon na ay goro amoon na ay soxna yu baax ko di mel waaye bàyyi Xadija melut ni sang bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali mu ne ko boo tax mu ne ko am nga goro bu baa boo xam ne bu mel ni man ku gën ci ku yàlla mësu bind mooy goroom moom mu ne ko man sax loolu aw ma ko waaw tax itam ni ko waxee woon seetlukat yi di wax ne bon bu ko waxee loolu day mel ni bon moom rekk nag moom mooy goroom maanaam yonent bi kam may jabar yoo xam ne moom moo ko eh, boppam mooy imaam Ali rek ñi ca des ñëpp bon day xaw a niru ne day dëgëral tees bi wax ne yeneen doom yañ koy askanalee ay doomu jiit jiit jiit lañ lañoon utiita salaasan lam yutanna lam yuutahunna ahadun wala ana أضيد سحرا مثلي ولم أوت أنا مثلي yàlla may na goro boo xam ne bu mel ni man mata man awma goro bu mel ni man ndax yàlla gën a gën ci ku yàlla mës a goro imaam ali te yonent bi sallallahu alayhi wa ali amul goro bu mel ni moom ndax amul ñaar ñoo xam ne ñoo leeroo ci màggaay boobu ak teraanga jooju mu ne ko am nga jabar ju xamante ne itam soxna koo xam ne siddiqa la baat boobu mu lañ bëggoon a indi dafa dëggul sunu borom subhanahu wa taala dëggu ci li mu nekk yàlla itam def ko mu nekk koo xamante ne léppam dëgg la kàddu liñ ci borom xam-xam yi wax bare na mu ne ko ku mel ni sama soxna si kon kenn du ko nattale ak beneen doomu yonent bu doon am na sax mu ne ko loolu man awma ko ak lu keneen for for for ak jeneen jigéen ak loo man a for for sayyidat nisaa'il aalamiina doo tolloog moom te kooku imam ali alayhi salaam moo ko am comme soxna ne ko man loolu sax sax min muhammadin sallallahu alayhi wa ne ko man soxna su mel ni sa soxna si sax aw ma ko man mooy ñaareel bi mu ne ko jox la Asan Useynu nga jur leen te man loolu sax man aw ma ko dama fekkee ba nee na say doom samay doom lañu moom laay continuer sox di wax ma tax Assane ak Ousseynou kenn du leen leeraleeg keneen nag kenn du leen leeraleeg keneen waaw ndax ñoom la wax yàgg nañ ko wax ci yonent bi Muhammadin sallallahu alayhi wa ali day wax ni Assane ak Ousseynou nuuraani min nuuri rabbil alamin ay ñaari leer lañu tax mu ne zul nuuree nii borom ñaari leer yi kuñ ko wax te man koy layal cib hadis wala ci lu leer te duut imam Ali dañ lay nax mu ne ko walaakinnakum minni wa ana minkum waaye yéenay man man maa yéen moom la ko sang Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi waxoon donc foofu ñëwoon nañ fi mi ñëw ki beneen dakkantal boo xam ne wala tur woo xam ne itam dañ koy dakkantalee wala dañ koy tuddee zahra ul kubra salawatullahi wa salaamuhu alayha muy al mubaraka nga xam ne mooy yokk mooy dolleeku ci mbaax mooy teraanga muy sutura mooy barke loolu yëpp mu ngi ci Zahra salawatullahi wa salaamuhu alayha ci léppam nag ci dund ba ci fu mu ci njaboot ga ci turwa ci njàngale ma ci ñaan ya waqad barakallahu fi sayida fatimata Zahra salaamullahi alayha anwaan min al barakat lu ne jox ko ko ci ay barbarke yàlla suñu borom subhanahu wa taala barke yu bare ba ay xeet yu bare bare bare def na wa jaala al xayra al kathira fi zurriyati rasulillahi sallallahu alayhi wa ali min nasliha waxoon nañ ko ci njabootu yonente bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali ci suuf fépp foo déggee ñi ne ab shérif la ab sayid la ab doomu yonente bi la amul sikk ni ci zahraawul kubra salaamullahi alayha ci la jógee koo fatimatu zahra ndax loolu itam beneen lay la ndax ñi ñu wax ne doomu yonent bi la am na ñu fi bàyyi woon dara kon ndax doomam lañ dëggantaan wala ay doomu jiit leem lañ woon xadis bi itam da koy xaw a ne ay doomu jiit lañ leen ngir barke ba nga xam ne moo feeñ ci Sahara salaamullahi alayha en tout cas histoire moom li nekk fi fi dunia wal axira barke ba qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi sang bi ne yaa Fatima ay yow Fatima boo demee ci bidaayatu wa nihaaya eh, ci ak yeneen ak yeneen yu bare bare bare bare am na ahlul bayti boo xam ne suyóoti yi moo ko indi bare nañu ko xamante ne indi nañ ko mu ne yaa Fatima eh yow Fatima maa baasallahu nabiyan ila jaala lahu zurriyatan min sulbi yàlla mas da yónni ab yonent boo xam ne bu njabootam ci géñoom lañ lañ juddoo moo leen jural boppam walakin wa jaala durriyati min sulbi aliyin waaye sama njaboot man ci géñok aliyu lañu jóge ko aliyu jur lu tax parce que ñi nga xam ne ñoo war jur njaboot googu di aimatu ahlul beyti salawatullahi wasalaamuhu alayhim munul jógee ci kudul ku maasum ku toll ni Fatima koo xam ne infaillible la ku mucc ayib te jamonoom amut fa amut ñett lañu woon moom Fatima baayam ak borom këram mooy miskaat boobu ñu doon wax ci suñu dajee bi wees ba nag loolu fokk rek ki xam ne moo fa des sa yoon may ko mu man koo takk moom moo koy jël mooy imaam Ali waaye imaam kom comme nafsu nabi la ci aaya ba anfusana wa anfusakum bon moom benn la moo tax suñu borom comme ni ko ni ko gisee woon ina ataynaakal ah kawsar waaw yàlla ne ko jox naa la kawsar jox la kawsar muy xéwal barke sutura jàmm yokkute ci njaboot ak ci lu baax loo xam ne day yokku kawsar la day multiplier wu ay milliards de fois jox nañ la ko wala so fa yutika rabbuka fatarda mu ngoog daa la jox ba nga ne gaaw baax na gongo loolu nag mu ngi ci kawsar mu ci njaboot ga surtout nag surtout moo tax borom xam-xam yu bare bare bind nañ ci bëri ñu ne barke ba fu nekk lu lu nekk su dinañ ci yu bare bare waaye kenn mësu caa jël njaboot ga wax nañ ko léegi njabootu yonent bi malgré primates yi nga xam ne histoire ñett na ne def nañ leen ko lu nekk def nañ leen ko lu ne def nañ leen ko waaye terewul c'est des millions c'est des millions de personnes yoo xam ne ñun ci adduna bi ñoo xam ne ñëpp ci njabootu sang bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali ci lañ bokk bari nañ lool koo xam ne ñu ngi fi te loolu day continuer di wéy ba yow mal xeer kon barke boobu mu nga jëm Zahra Kubra salaamullahi alayha waaw ñi ca des kenn déggatu leen wala boog bariwuñ bari fi leen di dégg bokk na ci tur yooyu nga xam ne Fatima salaamullahi alayha am na ko ak Tahira mooy ku laab ki Fatima dafa laaboon suñu borom subhaanahu wa taala laabal na ko ba lim jigéen di gis ci deret moo xam par weer la moo xam bu amee doom la loolu musul dal fatimatu sara salaamullahi alayha moo tax ñu naan ko batul moo tax turu batul suñu mbokki alpulaar yi bare na ca lool bëgg fatima lool nag bëgg asan ak useynu danañ sax bu ñu amee séex léeg day am asanatu asanatu wala useynatu asan mu jigéen danañ yàlla yokk xewal Fatima Zahra salaamullahi alayha bon yooyu am masu koy am léegi sax ñoo xam ne loolu nu mën a amee waaye yàlla ki jël suñu yaay Mariama def ca lam kay def te jaarelewu ko fenn loolu du lenn lu dul ab yàlla rek boo xam ne da koy denc fa ko soob jamono bu neexee mu yóbbu ko fa mu ko yóbbu processus normal bi maanaam fi nga xam ne fa la ñuy jaaree ba loolu am bu ko neexee mu teggi ko moom mu teggi woon safara sa xam ne lakk lañ ko xamee mu ne ko bu lakk sunu maam Ibrahim ndox ma nga xam ne labal lañ ko xamee mu ne ko bu labal sunu uh, uh, uh, yonent yàlla Moussa ak yeneen a yeneen moo tax ba Fatimatu Zahra daan am njaboot waaye li jigéen di ci deret moo xam période bu mu mën a doon ba amee doom la wala ba nga amagu doom mas da jegi Zahraul Kubra salawatullahi wa salaamu alayha loolu li muy tegtale mooy jaamu yàlla yëpp ak seen façon yëpp jamono bu nekk Zahra salaamullahi alayha da ko daan def amul diir boo xamante ne dina am lim mu mën a jaamu yàlla ji ji jam jamono boo xam ne dañ koy daggal ne ko am na heure soo xam ne doo ko mën a jaamu yàlla ndeg deret gi nekk ci wala li nga xam ne moo tax jigéen léeg-léeg du mën a yeex di jaamu yàlla yi loolu Zahraul Kubra salaamullahi alayha masu koy am waaye dañ ko seetaloon tam ci lépp loo xamante ne lu ñuy tuddee lu ngor mayewut lu ngor mayewut lu xam ne sa xëy na luwaa terewu ko sharia terewu ko waaye ngor mayewu ko wala jëf loo xam ne bu ko defee ñi ne cëm wala ñu da ko ko xoolee kooku sahara ul kubra salaamullahi alayha koy def moo xam ci jëf la moo xam ci wax la moo xam ci jëflante la moom salaamullahi alayha jëlee nañ ci sëtam di imam Muhammad al Baqir di doomu imam Jafar ibn Muhammad Sadiq salaamullahi alayhi mu jëlee ci ay baayam ñu jëlee ci sang-sang yi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi mi nga xam ne wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha lu mu wax rek yonent bi sunu borom subhanahu wa taala moo ko ko wax la mu ne innama summiyat fatima fatimatu bintu muhammadin at tahira li taharatiha min kulli danasin wa taharatiha min kulli rafasin wa ma raa qattun yowman xumratan wala nifasan salawatullahi wa salaamuhu alayha ne fatima li tax ñu bindoo fatima di muhammadin sallallahu alayhi wa ali ñu tuddee ko ak ku laab ki mooy li mu laab lépp luy tilimal nit ci jikko wala ci kaw ci jëmm wala ci lu mën a doon rek mais da caa boole woon nag laab ci li jigéen di gis deret bu ñu amee doom loolu mucc ca mu ne musula gis benn bis lu xonq deret joo xamante ne deretu euh, règle la wala wala nifaasan wala deretu euh, am doom moom salawatullahi wa salaamuhu alayha fatimatu bintu yenen yàlla tas ci imaamuna jaxfar ibnu muhammad asadiq di doomu imaam muhammadul baqir di doomu imaam zeynul abidin muy doomu imaam xuseyn mi nga xam ne mooy rakku imaam xasan di doomu aliyu nag fatima di doomu sang-sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa ali nee na fatima du am wujji de man da nekk ni inna allah harrama nisaa ala aliyin maadamat fatima xayya salawatullahi wa salaamuhu alayhim nee na sunu borom subhanahu wa taala xañ na jigéen ñi fatima eh, imam ali fekk fatima ngi dund kenn ku ko man koo xam ne yonent bi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi nee na lu la neex neex na ma lu ma neex neex na yàlla te lu ku lu lu ma naqari naqari na ma te lu ma naqari naqari yàlla ma kooku ko la du ji wujjeeg moom wóorul di ma kooku ko mën a amee nekk borom këram koo xam ne melo ni man wóorul moo tax du am mujj mukk nag moom salawatullahi wasalaamuhu alayha moo tax itam mu nekk loo xam ne jar nay baxel jar nay baxel nag royu waay a waaw jéem a mel mel wenn melokaan wa roy jar nay baxel bon ku laab kàngoo waaye fatimatu zahra salaamullahi alayha daan nañ ko woowee azzakiya zakiya boo ko doon misaal mooy tool bu xam ne lu fa ji mu nangu aw jarul engrais kenn du ko engrais kenn du ko fumier lu fa tabbi rek bu jébbee naat sëq meññ joxe la nga xamante ne moom la gàncax di war a joxe la ci gën a bari la ci gën a barke la ci gën a téy moo tax moom Zahra salaamullahi alayha dafa nekkoon ko xam ne ku laab ku ñu ku laab la waaye ku ñu laa dañ koo laabal moo tax mu laab suñu borom moo ko tànn ko tànn xool nañ ko ci suñu dajee ba wees ne bu suñu yonent bi Muhammadin sallallahu alayhi wa bi nasaraani najaraani ñëwee da jéem a wax ak moom mbir ma dem ne kutti ni jëmm kutti jënd maanaam amatuñ amatuñ fu ñu jàll ñu ne bon nañ def li ñu tuddee mu baaxala muy rëbbanti suñu borom subhanahu wa taala ne ko nad'u abnaana wa abnaakum wa nisaana wa nisaakum ak woo suñu doom yi ak suñu jigéen yi ak ñun ñu demal ñu demandoon imam ali moo doon nafsi rasul waaw moom lay woo yonent bi woowul boppam kam woo mooy ku koo xam ne moom la nad'u abnaana wa abnaakum wa nisaana wa nisaakum wa anfusana wa anfusakum kon woowut boppam dafa woo keneen koo xam ne moom la muy imaam Ali alayhi salaam waaye Fatimatu Zahra moom rek nag la yóbbu ndax moom boo ko jëloon teg ko ci benn balance jël mboolem jigéeni adduna la commencé ci njëlbeen ba ci ka muj ñoom ñëpp Fatimatu Zahra di leen di lënk moo tax mu représenté jigéen ñi ñëpp kenn ku nekk da ngay daw jëm jéem a am dara ca Fatima salaamullahi alayha mu tax suñu borom da koo tànn ne la safa adama wa nuuxan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alalamina googa zurriyatan baaduha min baadi moo tax mu nekk lu am solo moo tax mooy jigéen ji nga xam ne moo gën a sell ci koo xam ne humanité adduna mas na koy xam dan nañ ko dàkkantale itam arabiya nañ ko dakkantalee arabiya arabiya mooy ki gërëm la ko yàlla jox lépp lu mu war a def dana ko def lum ci amee gërëm sunu borom subhanahu wa taala lépp lu ko sunu borom santaane dana def lépp lu ko cee séntu ca dara da xam na ne comme ni ko borom gërëm daan waxee imam ali alayhi salaam yàlla moo yeeyoon jaamu jaamuwu ko ngir lum ko jox ndax daa gërëm nga ay ndigalam topp imaam Zeynul Abidin daan na ko wax daan na ko wax yàlla boo ma jëloon safara sax dugal ma fa du tere rek ma xam ne yaa ma yaa yeeyoo jàmm nekk lu am solo gërëmal sunu borom nit ki la muy def la mu war a def mu def ko bum ci séntu lenn lu dut sunu borom gërëm ndax moom gërëm na la ko yàlla def loo la ko lu mu ko jox gërëm na itam kooku nag Fatima de Sola ci njomboxtal la ci point ba ci gën a kowe foofu la toll woon moom Rabia la woon lu ko yàlla dogalal jël na lu métti li d'accord na da cay kontaan sax yëg ne yàlla même bu métti alhamdulilah sant na yàlla gërëm na ndax yëg na ne yàlla fàttewu ko léegi awliyaa yi ne daan nañ ko def njëkkee lu yàgg amuñ lenn looy naqari benn tolof tolof ci ñoom ci njaboot ga ci alal ja ci jëmm ja ci wax yuñ leen wax yoo xam ne duut noonu ak yi demee noonu dañ yegg ne mbaaru yàlla da leen a mere ba tax bu méttee ñi gërëm bu coonoo ñi gërëm bu naqaree ñi gërëm bu gaar si amee mu gën ñi gërëm lépp lu am rek ñi gërëm sunu borom subhaanahu wa taala point ba ci gën a bu yàlla mës bind ci jigéen fatimatu zahra salaamullahi alayha foofu la toogoon waaye moo tax mu nekkoon koo xam ne ku jege suñu borom subhanahu wa taala ci jege gëmu gëñuy jege borom manzilaam wàccuwaayam nekkoon wàccuwaay bu tedd bu mag bu yëkkati ko ci sunu borom subhanahu wa nekk foo xam ne itam sore na sore goo xam ne luy yàq ak luy laal lu ko jege moom salaamullahi alayha martaba goo xam ne yemu doon ci waaye allah ak alaxira la buy dugg àjjana sax moom kenn dañuy wax nëbbale fattaleen seen gis gi zahraul kubra salaamullahi alayha mu ngi dugg muy ñëw ndax lu ko def mooy am satisfaction totale ci lépp lu sunu borom dogal subhanahu wa taala kooku mooy Zahraul Kubra moo tax ñu tuddee woon ko Rabiya waaye nekk mu mardiya na mu def noonu sunu borom subhanahu wa ci waxin mu sànni ko bal ba au rebond gërëmee sunu borom ci lépp lu mu dogal mu lu neex la ak lu naqari la loolu la sunu borom subhanahu wa gërëmee lépp yëngatum lépp jëfim jëfin lu mag la lu ndaw la moo tax sang bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali doon wax naan fatima daal man saaraha man sarraha faqat sarrani lu ma lu ko neex neex na ma lu ma neex neex na yàlla xoolal ma loolu rek lu ko naqari naqari na ma lu ma naqari naqari na sunu borom subhanahu wa loolu mooy ku yàlla gërëm léppam nag waaw gërëmal na sunu borom léppam sunu borom delloo ko bal ba maanaam gërëm wa taala yëngat yëngati ay darajaam ak i martabaam moo tax lu mu def yàlla gërëm na ndax du def lu defawut du def lu defawut mooy bàyyi ji ci maana mooy borom kër gi ci maana mooy doom yi ci maana moo tax ba du def mukk loo xam ne defawut loola sunu borom subhanahu wa taala waxoon muy juróom ba ne ko ne waxoon ci way juróom ba ne walakum fi rasulillahi uswatun xasana wa ma ataakum rasulu faquduhu wa ma nahaakum anhu fantahu lu leen lu mu leen wax jël leen lu mu leen bàyyi tere leen ndax man da def loo xam ne bokkul ak ak li yàlla santaane ndég la mu xam loolu la tolloon moo tax lu mu def rek yàlla gërëm na mardiya lu mu wax yàlla gërëm na lu jógee ci moom yàlla gërëm na dindam yépp nag noonu la lu ko yàlla dig ne ku def nangam am nangam dana ko def ngir xam ne sunu borom a digee sunu sunu moo sañ a digle waaye dana ko gëm itam ndax xam ne lépp lu sunu borom subhaanahu wa wax sikka amu ca sikka moo tax ñu wax ni ngërëm gu mag ridwanul akbar kooku kër Fatima la daloon salawatullahi wa salaamuhu alayha moom Zahra salaamullahi alayha daan nañ ko tuddee al muhaddasa al muhaddasa mooy kañ daan diiñ waaw ka nga xam ne dañ ko daan diiñ kan moo ko daan diiñ mooy ki nga xam ne dañ ko daan li daan xew ak lay xewi dañ ko ko daan wax ilma ma kaana wa ma yakunu comme ni ko imam zeynul abidin salawatullahi wasalaamu alayha waxe ca euh, téeréem ba tey fa sa jaadiya yàlla da ko daan di di ko wax di ko yónnee ay malaaka ñi da ko wax waaw di ko daan di suñu borom subhaanahu wa taala daan di da ko daan waxyu mbokk yi nag malaaka day wàcc ci wax ak moom moo tax am na ay xadis bare yoo xam ne leeral na ne fala Fatimatu Zahra salaamullahi alayha malaaka dañ daan wàcc ci moom di ko wax di ko xamal li nga xam ne moo xew ak la nga xam ne dana xewi dag ko daan wax wàcc alxuraan wàcc ci moom waaw léeg-léeg ñun ràcc ñàkk a njuumte yu bare bare bare bare ay yu bare boo demee amirul muminin ali ibnu abi talibin salawatullahi wa alayhi bañ ko laajee wax dafa wax ne dafa am juróom-ñetti façon wax yu bu ma jumul wala juróom-ñeent xëy na mas nañ ko détaillé danañ ci duggaat waaye dafa am wax bi nga xamante ne mooy li ñu tuddee wax yu risaala wa nubuwa boobu jeex na boobu jeex na ci ba ñu yónnee yónnenti muhammadin sallallahu alayhi wa ali mi nga xam ne alquran moo ko wax ne ko wa xaatama na mbir mi pare na mooy ki nga xamante ne tey bu doon ci waxin nga ne ba ñu jëlee néeg ba da ci dëxëñ lépp loo xamante ne moom la adduna bi war a soxla dugal ko ci néeg bi bañ koy dugal néeg boobu mooy sangu-sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa ali waaye nag la nekk ci néeg ba yëpp nekkul loo xamante ne ñëpp ko xëy xam ko dañ ko faa daxëñ nag ñu ko fa daxëñoon ñooy xëy kenn benn nañ da génnee da xam le wala ñu xamal ko ña nga xamante ne la ca nekk wàcc ga jeex na dugal ga jeex na dara luñ cay war a defate amatu waaye nag la nekk fokk ñu leeral ko ko loolu day am moo tax li ñu tuddee waxyu risalati wan nubuwa waxyu goo xam ne day wàccee alquran muy indi ay aaya ki ay aaya di indi ay atte def leen nangam ak du leen def loo xam ne waxuñ ko woon ci jamonoy sang-sang yi muhammadin sallallahu loolu amatu waaye la ma ko waxoon yëpp ak lañ wàcce woon ci moom yëpp leerul ci ñëpp waxoon nañ ko ci suñu dajee yewees ne yonent bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali moo wax ne alquran dafa am biti ak juróom-ñaari biir yéen yi saba la wax yéen yi mu wax saba yi nag juróom-ñaar fukk yéen yi wax saba mi ak juróom-ñaar juróom-ñaari téeméer yeneen yi mu ne sabina alf soixante-dix mille biir wala domaine yoo xamante ne da ci am waaye yooyu yëpp nag mu ngi ci xay kii ba mu ngi ci eh, waxi nubuwati wa risala yooyu jeex na ci sang ba ndax moo mujj ci yonent yi moo mottali mboolem li fi yonent yi jaaroon moo ko mottali liñ ci dugal sa ci mu génn ko deferaat ko ba mu jekk ci jekk waaye du du littéraire de ko jàng baat bare xam ko demeewul noonu waaye terewul itam ay yonent wala ay kiibon ay yonent dootu ñëw waaye ay malaayka dañuy continuer di wàcc waaw kenn ku nekk sax suñu malaaka ngi ànd yow jamono bu nekk nag te dañuy am li yoo xam ne lañ daan def mission yéen daan def bokkul ak ba Jibril doon def da indi alxuraan yooyu ba léegi ñu ngi continuer seeni mbir waaw ji mat na duñ ci yokk tus waaw dara dootu ci yokkooti xewal gi yëpp a ci biir mu bàyyee ko bàyyee ko njabootu yonent bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali loolu am na waaye nag wax yu ga daan am te daan am jamono alxuraan ñett lil ñu ko booba day continuer ba léegi di am loolu day am day wàcc ci aw awliya awlaa muy wëli suñu borom subhanahu wa taala di leen wax ndax lu ñu tuddee wax yu baatu wax yu bu ñu dalee ci alxuraan waxoon nañ ko xam naa dinañ ci dellu siwaat waaye am na wax yu risaala wa nubuwa am na waxyu ilham am na waxyu kasb ba sax am na ak waxyu yu bëree bëri shayatinal insi wal jinni yuuxi baxdum ila baxdin suulu waaye da la ñuy wax yëf xur fal xawli xuruuran la yooyu day am suñu borom subhanahu wa yu yónni na ay malaayka waxu ne jibril la ñu yónni mu indi alquran encore une fois jeex na mat na al yawma akmaltu lakum diinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diinan waaye suñu borom subhanahu wa taala moo wax ummu Moussa ne awxaynaa ila ummi Moussa an ardii maa waxyu yaayu Moussa ba Moussa juddoo te Firawna bëgg koo faagagal mu def ko ca ga dem dem ca mbir ma dellu siwaat ci moom ci niñ ko xamee ñun ñëpp histoire mu ne ko maa ko wax yu ne ko na ko na ko na ko na ko kii na suñu borom waxyut ab ab ab euh, xolondongam wa awxaa rabbuka ila naari wax na ko di yoo xam ne yëpp am na am na la indi du wut jinne du wut lenn lu du ab malaaka moo xam ne sunu borom subhanahu wa taala moom ba léegi day wéy di am ba jii lu ci wuute nag loo xam ne day weddi la yàlla indi woon ci sang-sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi te mu ci weddi waxi seytaane la shayatin al ins wal jinn yuxi baaduhum ila baadin waaye la ñuy wax yëpp zuural xari xuuran waaw moo tax dafa jara ba xel waaye day am nag waaye nag yooyu nekkul loo ne dañ koy mu nekk loo xam ne dañ koy destiné yóbbu ko ci nit ñi nga xam ne day nekk risaala bu war a dem ci nit ñi di gën a bari circonstanciel la day ñëw bu régler benn affaire dem buñ paree mu jeex léeg-léeg mu jegoo benn nit kese nag soo xam ne léeg-léeg bu am sax sañ-sañ yu doxal ko waaw dee mu nekk loo xam ne léeg-léeg jar nay bakkal waaw wax yu googu ak différence yi wax yi ci am ak na muy ñëwee ba ko bi nga ne jeex na ci sang-sang yu muhammadin sallallahu alayhi wa ali muy waxi nubuwati risala bu dëppog dugala borom bi dinañ ci del siwaat waaw wa awxayna ila ummi Muusa sunu maam sunu yaay eh, Mariam ak sun maam Saarata saw soxna sunu maam Ibrahima ak ñi demee noonu ndax ñooñu ñoo ëpp martaba Zahra mi nga xam ne mooy sayyidat nisaa'il aalamiin yaakaaruma ko te ñoo ñëpp yàlla wax yu ne ci def na leen wax yu firi ne wax yi gi mu leen jox noonu dañoo nekk ay yonent de déedéet nekkuñu ay yonent nekkul ne itam Fatima de Zahra salaamullahi alayha dafa nekkoon ak yonent déedéet waaye comme ni ma ko waxee noonu wax yu indi ab message transmettre ko boo xam ne indi ko boo xam ne la ko indi ma am malaaka la dama ne dafee nekkoon te day continuer di nekk bi waaye kenn bi indi la yonent bi daan indi muy ay aayaaki ay atteeki ay alxuraan ak nangam ak nangam luñ leen jox te kañ ko jox la wala yiw yàlla du wuute mukk ak li xam ne moom la sang boobu muhammadin sallallahu alayhi wa ali indi woon moo tax daan nañ ko tuddee bon comme ni nga ko waxee moom zahraul kubra salaamullahi alayha al muhaddasa kiñ daan diw ndax malaayika yi dañ daan ñëw jëlee nañ ci abdou abdullahi imaamuna jaxfar ibn muhammad asadiq salaamullahi alayhi mu ne fatima dañ ko tuddee muhaddasa kuñ daan diw lu tax mu ne li anna al malaikata kaanat taxbit kaanat taxbit min alsamaai fa tunaadiha kama tunaadi mariam ibn imran mu ne malaayika yi dañ daan wàcc bay ko asamaan ñëw di ko woo comme daan wooyee malaaka eh, mariama ibnu imran naan ko yaa fatima inna allah stafaki wa taharaki wa stafaki ala nisaai l alamin yow fatima sunu borom subhanahu wa taala tànn na setal na sellal na la yëkkati na la ci kaw mbooleen bi fatima bon daal oqnati jaamul sa borom rek yow ci sa saxaar ci jaamu sa borom gi nga nekk rek was yu dee da nga jël sa lépp tënk ko delloo ko sa borom warta it nga màggal borom ci lépp loo xamante ne am na ma rakk yi naan ak yi nga xamante ne ñu ngi koy gëstu te jéem koo màggal ci seen lépp ruko màggal lay firi waane rabbiyal aala sax so awim liñ ci dellu siwaat suñu dëjee yële incha allah bu dëppog dogala borom bi mu ne muy wax ak ñoom malaaka yooyu di ko wax ñii wax ak moom ñoom itam ñii waxante ñoomu neen mu ne benn bis mas naa sax di wax ak ñoom banaan leen waaw benn guddi mu ne ko waaw ndax duwul ki nga xam ne moom la lay ñoom moo moo gën ci jigéen yi ak eh, eh, adduna bi gannaaw du Mariama moo leen ko wax di waaw question kol la Mariama ibnu Imran la moo gën moo gën ci jigéeni adduna bi malaaka yi ni ko déedéet fa qaalu inna Mariama ah kaanat sayyidatu nisaa'i aalamihaa de moom jamono ba mu nekkaloon moo ci gënoon ci jigéen ñi waaye yàlla wa inna allaha azza wa jalla jaalaka wala jaalaki sayyidata nisaa'il aalamiin aalamika wa aalamihaa wa sayyidat nisaa'il awwalina wal axirin yàlla suñu borom subhanahu wa def nag def na la nekk ki nga xam ne yaay sangu mbooleem jigéeni jamono moom Mariama sa jamono yow ak jamono yi ñu njëkk ñi ak ñu mujj ñi ñëpp waaw kon wala xam ndax jamono ji la way juróom bu fekkee ne ku yàlla mas bind muy sang-sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa ali ki nga xamante ne ci xadisu nuur ni comme niñ ko xamee ñun ñëpp ba yàlla nar a bind dara ci li bind leeram leer googu di continuer mu def ko fa ko neex ba sunu borom subhanahu wa taala bind aadama def ko ci leer muy continuer ba ci abdou mutalib abdou mu mu daal di xaaj bi jaar ci abdallah di moom bi jaar ci imam ali di di di eh, di jaar ci Abu Talib di Imam Ali seen ñaari leer da jaar ci Fatima jur Asan ak Useynu ñoom ñaar ñu nekk leeri sun borom subhanahu wa taala dama ne leer googu nga xam ne mboolem yonent yi fi nekk ay écran la ñoon ci waxin yoo xam ne dañ daan génnee machine ba nga xamante ne mooy produire leer ga te mooy sang-sang yi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi ak njaboot ga te Fatimatu Zahra moo ko dikkandu woon dama ne bon kooku kay ab écran fu muy mas a gënee nag machine ab machine machine ab télévision ci waxin kooku mooy Fatima du Zahra salawatullahi wa salaamuhu alayha moo tax moom sayyidat nisaa al alamin min al awwalina wal axirin kooku mooy Zahra bon malaaka yi dañ daan wax ak moom dañ ko daan déy demee sax gaa yi téere boobu ñuy tuddee mushafu Fatima ay neen alquran la boo xam ne Fatima da ko lañ ne gaa yi siyaa yi dañ ne gaa yi dañoo amoon alquran ak demee noonu mushaf fu ngeen ko mos a dégg alquran tudd ko wala yeneen bi suñu création la mushaf mooy ay kayit yu ñu dajale bind ci rek ñu dajale mooy loolu la alquran tanzil ak alquran ak waaw ak yooyu lay tuddee Eh, Moussa Fatima bare bare bare ci yooyu ñu doon wax malaaka yi ñëw di ko di yi mu xame woon ci way juram yàgg yi mu continuer di xam yooyu moom la bindi waaw am na yeneen di am na yeneen am na saxifa Fatima mboolem kii téere ñaan la yoo xam ne am na saxifa imam Ali saxifa eh, Fatima saxifa imam Hassan saxifa mboolem kii yëpp am na waaw mu ngi ci mu ngi ci mujj nga dëkk ne sax boo ci demee muy ci bi waaw kenn kii la tax mu ne amul benn ay alxuraan bu ci nekk ko dee loolu jara bakal moo tax mboolem aima yi salawatullahi wasalaamu alayhim sunu borom subhanahu wa taala da leen daan waxyu maanaam da daan di di def ilham di def eh, inspiration ci seen jamono waaw nga daan def continuellement fekk ñu ngi fi ba léegi waliyu yàlla yi sunu borom da leen di di waaw circonstanciellement léegi-léegi nag waaw le problème ñëw ñi dee leen loolu moom naqari wu da xam naqari wu da xam léegi-léegi sax ñi provoqué ko am na yoo xam ne yaa koy wutal sa bopp am ko ñaata yoon moo nekk ñu ne boo bëggee xam nangam ak nangam jàngal nangam ak nangam heure nangam ak nangam nga def nangam ak nangam yàlla xamal la lii ak laa loolu bëri na waaw bëgg sa muhammadin sallallahu alayhi wa ali bëgg la jur sa maam wala sa baay ji fi jógee ko woon bëgg la gis nangam ak nangam bëgg la gis mbir moo xamante ne da nga caa bëgg nangam ak nangam nga ñaan nangam def nangam ak nangam yàlla wan la ko loolu day am ba léegi tax loolu itam léeg mu jar a baxal léegi mu jëra ba xel moo tax imam ali alayhi salaam day wax naan inni wa awsiyaa yi man ak ñi nga xam ne ñoom lay jox mbir mi sama gannaaw dénkaaneel sunu borom li ci ñoom laa koy teg ci seen loxo min wala di bokk ci sama doom yi ñoom ñëpp mahdiyoona ay mahdiyoona lañ ñoo xamante ne yàlla du leen lu ñuy jëndee xeet wi kullu naa muhaddasuuna ñun ñëpp dañ yàlla di loo xam ne ci la ñuy gindee xeet wi bu leen xeet wi nangoo topp moo tax daan nañ ko tuddee Zahra comme niñ ko xamee loolu Zahra la muy firi bokk na ca mooy lu leer moy li tuddee lu set wecc lu nekk loo xam ne amul yokk amul wàññi loo xam ne lu kanam gi boo ko ne jàkk moom rek gis na nga xamante ne leer gi nga xam ne mooy jolli ci moom ma tax Fatimatu Zahra salaamullahi alayha leeram gi da daan jolli ba boo ko séenee doo mën a jàkkaar léegi moom ndig nga xamante ne ni la meloon asraqatil ard bi nuuri rabbiha ni mu daan leeralee waa suuf noonu la daan leeralee lu ko ëpp waa waa asamaan jëlee nañ ci al Askari muy wax ne laaj naa imaam al Xasan al Askari ne Fatimatu Zahra lu tax ñu tuddee ko Zahra salaamullahi alayha mu ne kanamam ga ak na mu daan teeroo amiril muminin Ali ibn Abi Talibin salaamullahi alayhi mu leer googa moom moo tax ñu tuddee ko Fatimatu Zahra mais Zahra da ngay xool imam Ali alayhi salaam nee na lu mu mitti mitti bu ma bayee ko ci guerre ak lu mu tàng problème bu ma jéem a coono bu ma mën a am bu ma tasee Fatima rek bu ma ko gis jàkk ni jàkk rek day mel ni mas de am mas maay am coono wala problème ci sama sama ci dund tax lu bare bare ñu da ko tooñ lu mën a jàkk ci moom rek imam imam askar yi wax mu ne boo ne jàkk ci moom rek day mel ni jëntab njolloor waaw jëntab eh, njolloor mooy bu jant bi jógee boori dix heures jëm onze heures mu ne bu boo jëkkee ba sawal ba tisibaar di jot day mel ni ab eh, eh, weer wu leer nañ bu jant bi de su mel ni ab boo xamante ne mooy étoile polaire wala bu ko kooku mooy Zahra moo tax sang sang yi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi di wax naan amma imnati sama doom ji moom fa di Fatimatu Zahra fa innaha sayyidatu nisaa'il alamin moom mooy sangu mbooleem jigéeni adduna bi minal awwalina wal axirin ñu njëkk ñi ak ñu mujj wahiya moom daal moom Fatimatu Zahra bid'atun minni nee na daggit la ci man wala boog mooy sama parti bi nga xam ne mooy feeñal ak jigéen ñi wala wàll yi xam ne moo war a gindi jigéen ñi ci mission wu sang-sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa huwa nuuru ayni mooy leeru sumay moom mooy leeru sumay bët samratu fuaadi mooy meññetu sama xol wahiya ruux yi allati bayna jën bayya mooy ruux bi nga xam ne moo nekk ci samay diggante eh, ci sama biir boobu wala ci sama diggante eh, xol wahiya alxawraau l insiya mooy ki nga xam ne mooy xuurul ayni bi yàlla indi def ko nit ndax wax nañ ko ci suñu dajee yi wees bi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi bi bi bi bi Fatima naree juddu Jibril daa dem ajjana indil ko fa benn pom mu daal di ko lekk loolu moo soppeeku li nga xamante ne mu indi Adama ci kaw suuf comme ni nga ko xamee ñun ñëpp nee na bu taxawee ci kaw mex ci mihraab mihraabam ba jàkkaarleeg suñu borom subhaanahu wa taala di di di jaamu yàlla da ngay gis leer ga na muy jollee dim leeral malaayika yi ak mboolem asamaan yi comme ni nga xamante ne ni lay leeralee mboolem planète terre yi nga xamante ne ñoo nekk ci suuf wala suuf planète yi nga xam ne ñoo nekk ci suuf gént baag yeneen yi kon kooku mooy zahraul kubra salawatullahi wasalaamuhu alayha wala boog loolu lenn la lu tuuti lu mel ni wala ku jël sa baaraam dugal ko ci géej ci ngëneelu fatimatu zahra salawatullahi wasalaamuhu alee moo tax kenn mënu koo jeexal waaye comme ñu ay bisam incha allah bu dëpp ak dogal ak borom bi dinañ ñëwaat ci Fatima mi nga xam ne moom lañ tudde woon yaayu baayam Fatima mi nga xam ne ban mooy doom nan la taxawee woon way juram ba ak yeneen yi nga xam ne yëpp incha allahu danañ ci dellu siwaat Fatima comme comme borom kër ku nekk ci kër euh, borom këram kër jëkkëram boog bu la neexee Fatima mi nga xam ne moo yar ay doomam nan la leen taxawee woon ak yeneen ak yeneen ak yoo xam ni loo ci di ñuy wax lu kenn mën la jeexal loo am bu ko bàyyi incha bon fii ci rajo Moussaïr FM 93.2 di kàddu njabootu yonent bi di jubee fii ci complexe imam Ali Ali ci imam Ali alayhi ci sax mbaaw ci Dakar ak li ko wër waaye ci complexe ci complété ci eh, Zahra FM 93 point 2 di kaddu njabootu yéen bi ci Kolda la li ko war ak mboolem médium yi nga xam ne ñoom la ñu àndat ci suñu waxtaan bi ñu ngi leen di ndokkelaat di leen ziar ci micro ci technique bi soxna Khadijatou Diouf Cheikh Tidiane Diawo ak Omar Diawo ci micro bi seen mbokk Mouhamadou Mourtada Gaye waaxiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.